merci monsieur le président nuyu di nuyu le ministre de l'éducation le ministre des finances le ministre du travail et le directeur du budget monsieur le président je vous rappelle l'article 58 du règlement intérieur et depuis lors gis nañ ay collègues députés yuy wax yu leen di perturber vous ne dites rien l'article wax na yow yaa war a rappeler à l'ordre ñi nga xam ne dañuy troubler audience bi je maan koy rappeler monsieur le ministre euh, vu yi nga ni jox nga ma ko par rapport ak su document bi ci ay réponses yu bëri gis naa ko mais tout d' abord permettez-moi de rendre un vibrant hommage ñi nga xam ne ñoo nekk les enseignants ak ñi nga xam ne ñoo nekk sëriñu daara yi ndax tey muy président de la république muy médecin muy ministre muy député muy DG ak ku mu mën a doon enseignants yi ñoom ñoo la jàngal ba na mu ngay yegg fi nga xam ne foofu nga yegg ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi ñoom ñoo def ci ay ñoom xam ñu yegg fa monsieur le ministre éducation dafa nekk loo xam ne lu am solo la parce que c'est la base c'est ce qu'a c'est compris le président Abdoulaye Wade ba tax mu jël li ëpp ci budget wu Sénégal jagleel ko li nga xam ne moo nekk éducation et pour année pour am année scolaire boo xam ne bu estable lay doon il nous faut deux choses mooy ñu respecter engagement yi nga xam ni jëloon nañ ko ak ñi nga xam ne ñoo nekk enseignants yi et boo xoolee ci engagement yooyu am na ci loo xam ne boo demee dans le budget dafa constituer ci risque budgétaire yi accords yi nga xam ne signe nañ ko ak enseignants yi et que on a vu que dañ doon signé ay accords mais dañuy dem ba ca digg ba du mën a am li nga xam ne moo nekk respect muy troubler li nga xam ne mooy année bi mais aussi la question des décisionnaires posé woon naa la ko nga andil ma ci ay réponses réponse bi mooy je waxuma li nga xam ne moom la ñu moo ko waral mais actes yi moom la ñuy xaar parce que am na ay négociation am na ay décisions yoo xam ne jël nañ ko mais depuis lors concrétiser guñ ko et ci concrétisation boobu noonu loolu moo nekk li nga xam ne ñoom moom la ñuy. moom moom la ñuy xaar waxoon naa aussi par rapport ak le renforcement du contrôle bi nga xam ne moo nekk contrôle de proximité bi avec district yoo xam ni fonctionnel lay nekk ak li nga xam ne moo nekk moo nekk euh, euh, pédagogique et li nga xam ne aussi moo nekk l' enseignement élémentaire mooy revoir les conditions de travail difficiles yi nga xam ne moom la enseignant yi nekk monsieur le ministre moi je ne peux pas comprendre nga jël lu toy ne trente milliards nga ni na nga koy def ci ay tenue scolaire posé woon naa la ko nga andil ma ci réponse réponse bi nga andi oui c'est loolu lu rafet la ñu ngi xalaat ñeneen ñi nga xam ne seen waajur amuñu mais balaa ngay sol tenue di dem di jàngi ji na nga am fooy jàngee ba pare munoo sol tenue dem jàngi boo demee di dugg ci ay abri provisoire munoo jël li nga xam ne moo nekk au conseil des collectivités territoriales jox ko huit milliards te loolu li nga ci mënoon a régler ci ay abri provisoire loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax ay désaccord yi wane que ni budget bi nii du ñu ko voté monsieur le ministre li nga xam ne moo nekk indemnité yi à chaque fois dañuy gis ni bu fekkee bi passé bi ñuy jëm ci élection yi on a respecté la dat mooy le 30 novembre bi nga xam ne moom lañ wax mais bi nga xamee ni élection amul la plupart du ñu ko respecté am na ci loo xam ne day am ci fi xam ne moo nekk Thiès foo xam ne dañuy andi problème par rapport ak le nombre de jours parce que dañ ne au delà mënuñu dem au delà de dix jours mais am na ay dérogation yoo xam ni ministre bi bu premier ministre moom moo ko signé woon. li nga xam ne moo jëm ci la salaire des enseignants yi nekk post yaakaar naa loolu aussi posé naa la ci question. posé naa la ci question nga répondre ma ci mais yaakaar naa aussi li nga ma ci répondre dayu ce n'est pas parce que viré nañ salaire yi viré nañ salaire yi mais mënuñoo jël seen salaire nan la def ba jël seen salaire ñoom loolu la xam ne moom loolu la soxla accompagnement daara yi aussi am na ñoo xam ne wax nañ ko fi gis nañ le président de la république mu woote woon fi nga xam ne moo nekk centre Abdou pour dajale fa sëriñu daara bâtiment administratif scolaire yi muy IEF yi ak IA yi ak li nga xam ne moo nekk lycée yeeg collège yi yaakaar naa loolu aussi war na ci mais la question des l'enseignement privé parce que am na ci ñoo xam ne ci école privée yi dañuy mais boo demee seen enseignants yi duñ leen fay li nga xam ne loolu ko jar dañuy jël xaalis bi ñoom xam ne ñoom ñoo ci nekk ñoom ñoom ñu nekk di ko dund et nga xam ne moo nekk inspecteurs yi ñu ci bëri dañuy dem di nekk ji ay conseillers fi nga xam ne moo nekk ci école privée yi te loolu ay fonctionnaires la te loolu ñoom loi bi daf leen koy tere yaakaar naa loolu aussi bëgg naa nga bàyyi ko xel ak par rapport ak li nga xam ne moo nekk les lenteurs administratives yi nga xam ne dañ koy noter ci dossier yi je vous remercie merci. Chers collègues, la parole à Guy Marius Sagna, suivant. maa ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp ci seen tur ak seen santé monsieur le ministre dégg naa danga nga xaw a jagadi yàlla yàlla yokk wér euh, di dalal sa xel ci benn mbir moo di ne fii kenn du fi wax lu jëm ci sa vie privée waaye fii amul ku fi ñëw ñu ne la vie publique nit surtout bu ñu la dénkee alalu askan wi sens interdit la. suñu suñuy ndey ak suñuy baay ak suñuy maam ak maamaat dañoo amoon benn yéene dañoo amoon benn projet ñenn ñi tuddee yéene bi ak projet bi un peuple un but une foi liñ ci nemmeeku moo di ne ak président Macky Sall c'est deux peuples deux buts deux fois ñoo xam ne bu ñu defulee dara ñu jàpp tëj ñoo xam ne bu ñu defee dara ñu bàyyi leen seetaan li may wax ci mbir mi mooy deux peuples deux buts deux fois moo di ne dafa am école lu néew ji doole ak école lu borom barke. nous assistons aujourd'hui à une privatisation de l'éducation dans ce pays li ñu doon wax démb ne boo amulee xaalis boo feebaree dee moo xuri njàng bi ci ne boo amulee xaalis doo jàng. lan mooy boo amulee xaalis doo jàng mooy boo amulee xaalis nga dem ci école publique muy école u état grève un mois grève deux mois grève trois mois ñi nga xam ne am nañ xaalis ak commencer par jàngalekat yi bëri na si ñoo xam ne nanguwuñu sax dugal seen doom ci école publique et ça c'est vérité nga nekk jàngalekat ci école publique nga dem ba xam école publique nu mu mel bëggoo sax sa doom doo koy yóbbu école publique voilà la réalité pour wane ne école bi nu mu bënee il y a un sabotage de l'école publique parce que li ëpp ci seeni doom jàngee wuñu Sénégal bu ñu jàngee Sénégal jàngee wuñu école publique saay bu ngeen di faale école publique mooy bu doomu néew di doole grévé ba sonn faale woo leen ñu dem di génnee ñi nga xam ne ñoo nekk école privée seen doom yi nekk école privée di ñibbi si naan leen jànguñu leen ngeen soog a fullal école publique voilà la triste réalité li am mooy Dakar octobre 2021 51 pour cent des établissements sont privés Thiès 13 Zig 10 virgule Diourbel 23 Kaolack 7 il y a 5 ans 10 ans 15 ans c'était pas ça la situation lu ko waral mooy sabotage en règle de l'école publique et ces chiffres vont augmenter parce que seeni doom jàngeewuñu Sénégal jàngeewuñu bu fekkee ñu ngi jàngee Sénégal jàngeewuñu ci école yi voilà la réalité mais nous tous on est d'accord sur une chose même ñi nga xam ne nee nañ président Macky Sall mooy le champion de l'éducation te dara du ci dëgg ñu ngi naan table banc doyul classe doyul jàngalekat doyul blouse doyul craie doyul tableau doyul léegi nag léegi nag wax ji mooy monsieur le ministre nag moo waxoon ne nag moo waxoon ne bi nga jiitee COUD dafa amoon ay pratiques de détournement de deniers publics et de faux et usage de faux OFNAC moom moo ko waxoon donc man bu may ñëw fii di wax Sénégal fi mu toll xaalis bi doyul dafa am ñuy détourné ñu naan détournement saaga la xanaa OFNAC bu bindee détournement détournement boobu saaga la lan moo tax fii saay bu ñu fi tuddee détournement ñu ne détournement saaga la or OFNAC mi nga xam ne Macky Sall mooy nommé képp nekk ci bopp bi di wax ne moom mii bi muy jiite kudd lii la def mais li tax ma koy wax c'est pas pour toroxal la nous som sommes pas là pour toroxal doomu aadama c'est juste pour dire que Macky Sall ñëw na bi ngay jiite kudd UCAD nga dépensé quatre-vingt-neuf millions quatre-vingt-neuf millions yooyu vous les avez pris vous les avez pris à l'école publique sénégalaise OFNAC moo ne bi ngay jiite kudd da nga fay sax nit ku dee nit ku dee da nga ko fay xaalis boobu vous avez pris ça à l'éducation OFNAC moo ne il y a eu un écart de millions entre une dépense à faire ak li nga réalisé ces 120 millions vous les avez pris à l'éducation je termine am na ñu ne nous sommes des ennemis de la République oui nous sommes des ennemis de la République coloniale oui nous sommes des ennemis de la République qui torturent et qui assassinent les Sénégalais oui am na ñu naan ñun dañoo dof fii ñun ñëpp dof waaye ñun waa yeewi ñun waa wàllu dañoo dof ci Sénégal dañoo dof ci askanu Sénégal dañoo dof ci Afrique dañoo dof ci génne éducation de cette situation. Voilà. donnons la parole à notre collègue Babacar Mbaye.